madame la ministre nous saluons avec effort le gouvernement def dans le cadre de la promotion de l'équité et de l'égalité de genre et de la protection socio-économique des femmes Nous saluons koy saluer bu madame la ministre ndax gis son excellence pour mu toogee programme de yi mu teg lépp gis na ne gis nañu ñun le monde rural vraiment loolu aussi dañ di rafetlu tamit euh, financement yi ngay octroyé femmes yi loolu tamit ñing koy saluer bu baaxa baaxa baax euh madame la ministre da nga ñew Thiès mu nekk troisième région bi recevoir ay financement nga jox ñu un montant de 49 millions destiné à 245 projets de femmes ci 15 communes yi nekk Thiès yépp loolu madame la ministre ñing la ci féliciter bu baaxa baax moo tax su ma toogee fii tey ma dégg sama benn collègue bu dëkk Thiès nga xam ne man sax xaw ma ko ba ma ñëwee fii laa koy doog a gis mu dem madame la ministre financement yi dafa am ay parti pris loolu dama naan amul ndax koo xamante ne bokkoo ci benn organisation de femmes ña nga bokkal commune de Thiès sax xamuñu la kon yaakaar naa ne bu ñuy séddale ay financement mënoo xam fu muy aw ndax te financement yi amul parti pris man mii samay mouvement de femmes dugal nañu ñeneen ak ñeneen dugal nañu te amul le projet yi ñuy PDS ministre les gens bonne voie continuer pour déstabiliser. par rapport madame la ministre à la campagne de retrait des enfants de la rue euh, madame la ministre dafa laaj une vaste campagne de sensibilisation d'abord avant ñuy accéder action bi euh, la commune de Thiès Ouest ak euh, en collaboration avec le maire de la ville de Thiès Tala Silla am nañu programme pour lolu pour manam défar cœur xalé yi Thiès am nañ site bi le conseil municipal bi délibéré nako kon madame la ministre fofu yaakaar naa ce accompagnement rek lañuy soxla pour ñu mëna mettre lolu à l'œuvre ndax site bi mi ngi taxaw te vraiment fofu tamit dinañu permettre xalé yi nekk ci mbedd mi di taxawaalu leen jëlé ñu am fu leen duggal ndax buñu retirer xalé yi ci mbedd té amuñu fuñu leen dugal it liggéey bi day yàqu rek euh, Thiès aussi dañu am foyer de la femme fofu vraiment femme yu bari fa lañuy dajé difa di fa liggéey di def tenir ay réunion ak jeune filles aussi fa lañ leen defal ay formation en collaboration avec la avec 3FPT euh, voilà ak la mairie de ville jotone na faa dugal 25 millions pour accompagner femmes yoyu ci ay matériel ak euh, réfection ki bi bâtiment bi madame la ministre foofu tamit soxla woon nañ fa tamit sa appui ndax euh, femmes yi ñu ngi góor góorgóorlu am nañ ay financement am nañ ay formation mais matériel yi ñuy liggéeyee dafa xaw a manqué foofu loolu daal soo leen ci mënoon a jàppale loolu dina baax te ñu ngi lay xaar foofu tamit nga ñëw seet si leen ndax comment ñi ngi def foofu liggéey yu am solo benn femme taxawaalootul jigéen ñëpp ngi ci foyer ba fa la ñu ñëw di defar ay cuub di ñëw di defar ay pâtisserie di ko génne di jaay di defar ay saabu di defar ay eau de te yakarna yaakaar naa ne dafa bokk ci développement wu bi te ñun femmes yi ku nekk xam ñun le levier le plus fiable pour accéder à l'émergence quand kon madame la ministre ñu ngi lay ñaan nga accompagner ñu maa ngi lay sant di la merci beaucoup.